bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi nuyu mboolem jullit yi fi teew ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di ñu topp ci jumtuwaayu xarala yi moo xam site internet wala télévision wala rajo yi ñu ngi ciy déglu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel di leen balu ak di balu ak jëpp di jiital ci nuyoo bi cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan sunu boroom tabaraka wa mu yàggal ko fi te wéral ko ak mbooleem njabatuk xaadimu rasul di am mbégte di sant yàlla sunu boroom tabaraka wa moom mi ñu may kàttan ak man-man ak wér ba ñu teewoon fii daaw ngir tàmbali liggéey bu am solo bi nga xam ne mu daaira muxaddamatul xidma da koy def at mu jot ci weeru koor ci ndigalul cheikh muhammadul muntaxa kon ñi ngi sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala mi ngi mayoon kàttan googu daaw may ñu tamit ñu teewe ku ren fas yéene tàmbali liggéey bi nga xam ne e, benn pàcc la ci liggéeyu daayira muxaddamatul xidma ci koor gi muy lu aju ci wàllu waxtaanu diine yi nga xam ne lañ lañnatu saqaafa bi di commission culturelle bi moo koy taxawee ànd ko ak mboolem waa daaira muxaddimatul ma ci njiitul sëriñ Afia Bousso mu ànd ak ay iftaar ay ndog yoo xam ne ni ngeen ko xamee incha allah ni mu demee mbooloo mu bari di fi teew mbooloo mu bari di teew fii ci jataay bi di teew waxtaan yi mu doon loo xam ne dañ ciy jubloo berndeel ruu yi ngir lu leen jariñ ci seen diine ak lu leen jariñ ci seen aada man cee jariñu fii ak fële ñu jëm incha euh, ren jii nag niñ ko daa defee tànn nañ ay tomb yu am a am solo yoo xam ne yenn yi ay duruus lañ koy tuddee mu aju ci ay bind yoo xam ne dañ koy jàngale muy jege nit ki yoo xam ne dana fàttali ki xam jariñ ki xamut yooyu tànn nañ ci fukk ak ñaar yoo xam ne ay duruus lañ leen di tudde yoo xam ne benn bu ci nekk su ñëwee dafay mel ne moo dàq moroomam dafay mel ne moo ëpp njariñ moroomam ci ak am solo niki noonu tamit li ñuy wax ay mawduxaat muy ay tomb yoo xam ne dafay jamono da koy laaj jamono da koy laaj maanaam yoo xam ne jamono jii ñu toll dafa laaj ñu waxtaan ci moo xam ci jikko yi lay aju moo xam ci kilifa yi aada yi lay doon moo xam ci ci ci ci ñëpp rek ñëpp ciy jël seen wàll loolu tamit tànn nañ ci fukk ak ñeent fukk ak benn noonu ak ñeenti fatawaa yoo xam ne dana am ci biir koor gi képp koo xam ne am na ab laaj bu mën a doon moo xam ci jataay bi nga nekk moo xam dangay ngay topp jataay bi soo ko yónnee danañ la mën a tontu ci jataay yooyu nga xam ne ay fataawa lay doon incha allahu rabbi ren ji noonu lay noonu lay doxe ñi ngi ñaan sunu borom mu kàttanal ñu te may ñu ak wér ba ñu mën koo defe ni ñu raw ni ñu ko daa defee barakati xaadim rasul mu bokk ci tomb yooyu nga xam ne moom la ñuy tudde ay duruus suñu jataay bii ñuy ubbee tey ci lay bokk kenn ku nekk xam na ne jaaru na su weeru koor teroo ñu fàttaliku ay bind ci lu aju ci koor muy koor ci boppam ay ak ay atteem ak i tegginam atte yi nga xam ne mooy attey koor ak teggin yi nga xam ne nit ki koy def war na koo làmboo loolu jàpp naa ne danay amal solo jullit bi nga xam ne mu ngi dugg ci weer wu tedd wi di weer wu barkeel di weer wu yërmande di weeru gore ci sawara di weeru njëggal kon nit ku nekk rek sunu borom dafa waral ci moom sa suy dugg ci mbir jaamu gu mu mën a doon mu xam la ca sunu boroom àtte la cay farata ya ak sunna ya ak la koy yàq ak la koy defar ak teggin yam ci war a làmboo loolu tax kon tomb bi ñëw na ci bind bi ñuy joxe ñëw na ci waxtoom ñu war cee ànd nag ak euh, sunu mbokk di boroom xam-xam sëriñ Maam Mbakke xam sa diine di sëriñ Mamor Mbàkke mu sëriñ jiiri Gànnaar moom sëriñ Mor Soxna moom Mamor Jaara moom la àndal ci waxtaan wi mu war ñoo indil ci sawmu ramadaan ahkaamun wa adab maanaa koor ak ay atteem ak ay teggiinam incha allahu rabbi xam ngeen ne tamit borom liggéey bi nga xam ne mooy jëwriñ yi ki ñu koy liggéeyal di Cheikh Mahamadul Muntaqa saa su nekk bu ñuy tàmbali dana fi yabal ay ndaw yoo xam ne ñooy ubbi jataay bi taaral ko ñu ngi leen di bàyyi xel incha allah bu waxtaan wi jeexee danañu teew yëkkati ay kàddu ci turu sëriñ bi ngir ñaanal ñu ñu ñu sóobu ci liggéey bi kon su ko defee dañuy njëkkante ak waxtu wi jébbal kàddu gi sëriñ Mamor mu indi bind bi nga xam ne waajal na ko ngir ñu fas ko yéene jariñoo kon ñi ngi bàyyi xel bokk yépp rek ñu ànd ko déglu ak teewlu fas ci yéene jariñu kon sëriñ bismillah na Cheikhul Xadim noo leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci weer wu tedd wii nuy door a tàbbi di ci balu ñëpp xaq di ko balit ñépp ñaan suñ borom nii nu ci sooboo mu defal nu kàttu kàttanug man koo matal matalin wu dëppoog nit ñi di ko sante te ñu nangul nu ko te fulal nu ko te yàggaloo nu koo fekke yàgg nu ko fekkeloo fekk gu ànd ak tal ak xéewal ak mucc ca barke Seexul Xadiim jiital ci siyaar bi ak ndokkeel gi Seex Mahmadul Muntaxa mi fi nekk Sëriñ Tuubaa ñaan sunu Boroom mu yàggal ko fi lool te wéral ko lool ba mboolem ay naalam ak yéenam lépp mu mottali ko ci sagoom te lépp na nu ànd ko ak moom waaye ndokkeel it daayiratu muxaddamatul xidma ci liggéey bu am solo bi nga xam ne benn la ci seeni liggéey mu nekk liggéey bu am solo bu njariñam yaatu lool jëm ci jullit ñëpp te di ko amal at mu nag ci jamono ji ñaan suñu boom ñuy gën a am ay ndam ci liggéey bi te lépp dafa ngër ma Sëñ Tuubaa ni ko sëñ bi laxaat waxe léegi tomb tey bi di shahru ramadaana ahkaamun wa aadaab weeru ko dafa làmboo ay àtte yooyu lislaam ci fànn yu baree baree bari làmboo ay teggin te jaadu nag ci kiy jëfandikoo jàmb gi mu ràññale yooya xàmmee ko ba mën koo def defin wu dëppoo ak ni ko ko sante mooy tax mu sell te sell ga mooy tax ñu nangu waaye bala ñoo soobu ci lool nag dañ jiital muxaddima bu yaatu boo xam dañ ci xamle dayob weer wi màggaayam tedd ngaam ni ko war a jàppe door jëw jëm nag ci àtte yeeg teggin yeeg la caaju xam nañ ne koor ak jaamu yàlla la jaamu yàlla ak yaram ak ruux jëf la ju yaram di def waaye mu nekk muy ànd ak pas-pas ak yëg-yëg ci wàllu ko ruux jaam bi di ko jaamoo boroomu subhanahu wa taala suñu borom yi nga moo ko farataal ci jaam ñi taal tax mu farataal ko bokk ca ngir yar seeni bakkan ak nga def defar seeni jikko muy jubbanti ak laabal seeni xol ngir ñu nekk ay jullit yu gëm yàlla yu sellal yu yiw yu baax ngir ñu ragal yàlla dëgg dëgg ak ragalam loolu na tax na mu am ay mbir yu bari yoo xam ne kii woor war na ko bàyyi xel ngir sàkku ci ngërmal borom bi subhanahu wa la bëgg cee tudd yenn ci misaal bi ci njëkk ñu xam ne mbir mu nekk dafa am wasiila am raaya wasiila mooy yoon wi ngay jaar ngir mën a àgg ci mbir raaya ba nag mooy fa la tax a jóg raaya koor nag ab dayoom mooy topp yàlla lépp jublu gi lépp mooy topp yàlla subhanahu wa taala kon jullit bi faaw dafay topp yàlla ci jëfe ay ndigalam ak bàyyi tereem loolu mooy dëggal la mu waxoon ne yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum la siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun dama farataal ci yenn koor ni ma ko farataal ci njiit woon lépp nag la ko tax a jóg la ma la ma ci la ma ci jublu mooy lañ cay jëli mooy ngir ngeen ragal yàlla la'allakum tattaqun taqwa kon mooy mooy lañ cey sàkku jullit bi kon sañ a yaakaar ci yàlla subhanahu wa mu jéb mu jéggal ko ci la jiitoon lépp cay bàkkaaram waaye di ca mébétit ak gore ci sawara ak tàbbi aljanna te su ma daal diggoon na ko yonent bi saa sama ak ñi ci moom ne man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaba wa xufira lahu ma taqaddama min danbihi rawaahu Nasaa'i képp ku woor Ramadan weeru koor te lépp mu teg ko ci gëm yàlla ak sàkku tiyaaba yàlla jégal ko la jiitu woon lépp ci ay bakkaaram Nasaa'i yu moo nettali xadis boobu ñëw na ci xadis xudsi it suñ boroom wax ne jëf yépp jëf ju mën a doon ju jaam bi jëf jaam bi moom moom jëf ji ba mu des koor koor ma man yàlla maa ko maa ko fee sama bopp kullu amalin aadama lahu illa saw fa innahu li bi dëgg-dëgg yàlla moom jëf yépp jëf yépp yàlla ko moom kon suy tànnee kon nag jagoo ko ne maa ko moom donte moom moom yépp kon askan gi mu askane boppam dafa dafa wane rek kon daye moom ak fu ko ak ak yitte ju mu ko jox ak ñor bu mu ko ñor Eh, ak eh, màgg goo xam ne màgg na ko buxaari yi ak muslim ko ci nag solo na xadisa boobu ba ko ñaareel may ixlaas sellal dafa bokk ci jikkoy aji woor ak gépp jaam yàlla bu sunu gu di def aji woor faw dafay màndarga wa dafay jikkoo jikkoy sellal ngir yàlla asa wa jàll te mooy lépp lu mu jëf ne yàlla dong tax maanaam koor gi mu yor na jëm yàlla dong tax lépp lu jëf ji ànd ak sellal daanaka jëf ga ak bàyyi ga dañuy xaw a yem ndax li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne rubba qaa'imin min qiyaamihi as-sahr wa rubba saa'imin xadduhu min siyaamihi al-juu' wal-'atash rawaahu ahmad baraana aji taxaw di naafila guddi te jëliwut ca taxawaay yu lu may ñàkk nelaw dong baraana kuy woorit te dara toppiwu ko ca koor ga lu may xiif ak mar dong yàlla nañu ci la musal moo de Sëñ doon wax ne koor kon yéemu rek ci bàyyi lekk bàyyi naan waaye koor mooy sa cër yépp woor summa siyaamu fantabihi lam yanxasir fii adimal akli faqat laa taxtari kon loolu loolu dong lu mooy koor isu barsa mi maal jamaa lay suloo fii sol majaa kon la mooy lu mooy dëpp xadis boobu waaye sell la nag dafa nekk ponk cosaan ci jëfe aji woor ndax lépp lu sellal amut lu ixlaas amut doo jëf de su ko nangu ba ko ñetteel mooy as sabru muñ ci jikkoy aji woor la bokk kon koor dafay tàmmal bakkan bakkan doomu aadama daf koy tàmmal ak muñ muñ xiif muñ aw mar muñ ay bànneex ngir ci lay mën a ñoŋale bakkan bi ba man ko néewal doole yi nga xam ñoo koy song di ay noonu yoo xam ne ñu koy wëlbati di ko jëmale ci loo xam ne lu yàlla gërëmut la waaye ci lay mën a note ci la koy mën a note dëgg dëgg dëgg ba mën koo jàll fu mu ko bëgg a jàlloo ci jëfandigal bàyyi bàyyi jëfandigal ak bàyyi tere moo tax yonent bi saa son doon sum sum chehra sabri wa thalasat ayaamin min kulli chahri yudhim na waxara sadr bañ na ko ba weeru muñ la ko tudde foofu sax nanga nga muñ na nanga woor weeru muñ wi weeru muñ wi ak ñetti fan ci weer wu nekk loolu dana dindi ñëggi ñëggi xol day dindi jax xol biraas ak tabraani ku ci ne nettali na xadisa boobu kon muñ mooy ngànnaayal aji woor tey ci lay mën a nag e, dégge wala jële wax ji sunu Boroom waxoon ne fas yuwaffas saabiruuna ajrahum bi xayri xisaab ñiy woor day seen seen pay ga leen yàlla fayal fay dara du ca mànki pay gu sëkk lay doon e, pay goo xam ne du ànd ak benn benn benn benn jafe-jafe du ànd ak benn rek la ëllëg dañ lañu ko jur noonu rek ba ko ñeenteel mooy at tadhiya mooy nangoo def ay sacrifice mooy toggoo ay metit kon faaw aji woor ji nangoo sacrifier lekkam ak naanam ak yéeg-yéegi bakkanam rafet-rafet ak neex-neexi bakkanam noonu la ko def ci àlalam nangoo sacrifice alalam bu ñuy digle sadaxatul fitre askay murum koor wala muy asadaxa tatawuiya muy sarax yi nga xam ne ki mooy coobar yu di ko defal boppam léppi ngir sàkkub yool ci ci yàlla azza wa jalla te mbir moom ay ahadis yu bare bare bar root na ci yoo xam ne yëpp wér bokk na ca wax ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne as-siyaamu wal quraanu yashfa'aani lil abdi yawmal qiyaama alxuraan ak koor ñoom ñaar ñépp dañuy ràmm ab jaam ëllëg bis penc yaqulu siyaamu ay rabbi manatu manatuhu taama wa shahwata fa shafi'ni fii wa yaqulu quraan ay rabbi manatuhu nawma fa shafi'ni fii qaal fa yashfa'aan rawaahu alimaam ahmad wa tabrani yi alxuraan day wax ne yow sun borom euh, koor day wax ne yow sun borom kii day maa ko teewoon a lekk tee ko naan kon nag rikki tin ma ci moom alxuraan ne ko kii sun borom kii day maa ko teewoon guddi ngir di ma taxawee di ma naafila kon nag rikki ma ci moom sun jox leen ndigal ñu ràmm la ñoom ñaar kon koor nag faw nit ki nangu ci toggoo ay sacrifice ci ay mbir yu yu yu yu bakkan bëgg ngir jaamoo ko yàlla subhanahu wa taala eh, sacrifice sa bakkan nag ak sa alal ak sa lekk sa naan ak say bànneex dafa bokk ci jikko aji woor waaye bokk ci jikko kiy kiy ci yoonu yàlla ndax mooy cosaanul ngañaay ci sa bakkan nit li fekk mënta am nga ñaayal bakkanam mënta am nga ñaayal ay noonam maanaam noonu lislaam yi faaw nga faw nga am victoire ci say bakkan door mën a victoire ci say ci noonu lislaam yi kon nag am wàccuwaay bu màgg a màgg bu kawe eh, fa yàlla subhanahu wa taala ndax dafay jaadu ci jullit bi mu xam ko eh, ngir màggu dara jàmm taxoon na Sëriñ tubaab mii sunu yaakaar daa ko waajal lool teru ci fànn yu bari am na xasigu xasida gu gàtt gum ci taarif taarifoon ko ca Gabon eh, ci terutel weeru koor doon ko ko gàttandoo ak di ko ca dalal di ko ca tatagal yaa xayra dayfin bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi muy xasida gu gàtt waaye xamle na ca biir darajay weeru koor xamle na ci ay njariñam xamle na ca it naka la ci jullit bi war a taxawe ak nan la ko war a jàppe ba mën a jot ci ngëneel yi nga xam ne moo dencu ci biir weeru koor wi mu tënk ci njalbeen gi lim namm lim ci namm ndax feeñal na ne mboolem xeeti gan yi am yépp gan gi mooy gi ci gën moo gën ci mboolem xeetu gan gu mën a am yaa xayra dayf yaa gën ci mboolem mboolem gan yi dafa tegtal kon borom dara yi ci la wane nag gan la wax ne buy ñëw dafay indaale sëri ca mbégte dafay indaale sëri ca xéewal dafay indaale sëri ca ndollam jëme ko ci mboolem jullit ñépp nag tax nag mu dalal ko tatagal ko yaatal ko ne ko ñëw nga sa kër fekk nga fi say bokk fuñ la namme fuñ la soxlaa fuñ la fuñ fuñ la fuñ la yittewoo fuñ la bëggee wax ca li ca sës ne feeñal ca daraje weer wi wane ne gan la gu tedd gu ñuy dikkal at mu nekk waaye gan la gu yayoo tiraanga gu yayoo bernde waaye lañ koy berdeel do doon ay misir doon leen waaye lañ koy berdeel mooy topp yàlla bernde topp yàlla la zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi xiira taati wa sadadi wane nit gan la gu màgg fi yàlla subhanahu wa taala màggam googi nag ba ko waroom xam-xam yi xamee kilifa yi xam ko ñu baax ñépp xam ko dañoo maase màggal ko jox ko dayo bi ko yàlla jox subhanahu wa taala muazzaman inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal ilmi war rashadi màgg googi mu màgg nag may soo ko xamee ci juróomi yëf ci tënk ba njëkk mooy wàcce gi ci sun bam wàcce alquranul karim te alquran mooy làmp bi nga xam wala jant bi nga xam ne ci la jaam bi di niitoo ci jullit bi niitoo mën a xam li koy jariñ àdduna xam li koy jariñ àllaaxira su xamee li koy jariñ mooy tax mu topp ko xam la koy lor moo tax mu moytu ko ci lay xàmmee la baax ak la lëndëm ci eh, li baax ak li bon ci lay xamal li leer ak li lëndëm ci lay xàmmoo xàmmee li jub ak li dëng soo dee mu topp la baax bàyyi la bon topp la leer bàyyi lëndëm topp la jub bàyyi la dëng shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnaasi bayyinatin minal hudaa wal furqaan ba ko ñaareel ci luñ mën a xamee màggaayu koor mooy ci la guddi gi laylatul xadr nekk di guddi gu màgg daraja gu kawe gu am solo goo xam ne ci waru weeru koor rekk la ko suñu boom jagleel genn guddi goo xam ne ku ko jaamu yàlla te sell bu ko suñu nangoo dana toll ak junni weer yoo jaamu yàlla jaamu yàlla gu suñu nangu te junni weer ñu koy natt ci juróom-ñetti fukki at ak ñett ak ñeenti weer loolu ñëpp amuñ tawféex yi dundul toll noonu waaye genn guddi képp nga màgg ko am ca tiyaabe mel ni ko dund loolu jaamu ko sundoom nangu jaamu ko lépp new ñooyam sax waaye da ko ëpp la wax xayrun la wax laylatul xadr xayrun min alfi kon dafa da dafa gën jun junni weeri jaamu yàlla bu nangu euh, kon guddi goo xam nag dana wuutu la tol noonu ci aw yiw kon weer wam nekk day wane kon weer woowa weer la wu màgg wu am dayo wu tedd wu sell wu bari ngëneel moo la Sëñ Tuubaa naan yaa shahr rabbin karimin fii ka jaadalanaa bi laylatil xadri taatil fadli war raxadi yow weeru koor wi weeru sunu Boroom bu tedd wi ci sa biir lanu sunu Boroom defal xéewaluk laylatul xadr guddi goo xam ne guddi xéewal la guddi ngëneel la saatul fadli war raxati borom ngëneel la waaye xéewal la itam ba ko ñetteel ci liy tegtale ak màggaayam mooy wenn weer wi suñ borom yoonal farataal ñu woor ko ci diirub at mi donte weer yu màgg yeneen am na tabari lool it ci biir at mi muharram weer la wu màgg dul xijja weer la wu màgg wal xiada raja chaban am ci yoo xam ne dafa bokk ci al ashurul xurum weer yoo xam naka jekk dafa amoon war ma jiitu lislaam amoon màggaay jiitu lislaam eh, am ci yoo xam ne sopp nañ ko woor lépp ku ko màng mbaa woor la ci ëpp waaye ànd ak loolu lépp nag cheikh ramadan képp la suñu farataal ci jaam bi mu woor ko diirub eh, ci at mi yépp ba ko ñeenteel mooy am nag màggaloon fa yàlla subhanahu wa taala ak warma ju rëy ba tax deefi ci ful jëfi jaam bi jëf ju mën a doon moo xam jëfi topp la moo xam jëfi mooy la dañ koy ful ndax weer we màgg moo toll noonu lu ci waaye jëf suñu ba ful ko naa weeru kon mu jëf la xam mooy loo ko indil mu fulal la su dee baax mu ful su dee leneen mu indil mu fulal moo tax ñu kon weer promotion la boo ne weeru njëkkante la ci jëf-jëf ju baax doy nal ca tegtal rek ci ne ci war maam ne képp ki woor war amul benn ngantam mu dog ca ñaari weer a koy fay ñaari weer yu toftaloo yoo xam soo dogee te te te te te mëtu da loolu benn la ci benn la ci xeeti kafaare yi weer woo xam ne benn bisam ñaari weer a koy fay ci yeneen weer te te kon woo weer kon weer la wu màgg weer la wu tedd da ngay fay bis ba noppi door weer war a ñaari weer kon day war ne kon woo weer wu tàgg wu màgg la wu tedd la wu bari ngëneel la kon ku weeru koor tàbbi ndax suñu bon ni mu amee ci jamono yi jamono yu tànn yu ñuy fuli jëf noonu la amee ci barab yi barab yu tànn yu ñuy fuli jëf da nga dégg ne masjidu xaram soo fa jullee benn rakka muy jumaay màkka rakaam bu nekk dafay toll fukki junni rakaay yooyu julli fanaan bu dee masjidu nabawi yi mu jàkka yontu saa ci madina benn rakaam bi wecc junni rakaay yooyu julli fanaan su dee masjidul aqsa soo fa jullee benn rakaam mu wuutu juróomi téeméer rakaay yu julli feneen kon ëppale ga muy ëppale feneen ay ay ay ay darajay jaam yàlla mooy màggaayu barab baa tax te tuubaa gii nag ca barab yooyu la ko suñu borom barab yi ñuy fule ay jëf da ca bokk Cheikh Mahmoud Cheikh Abdul Xaadir daana dafa mas a siyaar ji fekk ko njaareem fekk koor di jage si ñu ngi ko siyaaree bay tàggu ngir tàggu ngir di ko tàggu ngir dellu ci la ko laaj fan nga bëgge woo fan nga bëgg woore mu ne ko man de Tuubaa laa bëggoon a woore mu ne ko sa baay bu baax de newoon na lu baax baaxee na fu ne waaye Tuubaa la gën a sakkane lu baax baaxee na fu waaye Tuubaa la gën a sakkane te sëñ bi xaar nee na man lu sakkandoo dong lay wut moo tax bañu na ba kooru ngàtt nga sax du ko nangoo defe fenn fu dul Tuubaa kon baral la bu ñu fulee jëf kon kon su weeru ko tàbbee fekk la fu mel ni Tuuba kon ñaari war ma daje na ci sa kaw kon ku nee war a fegu waaye yaa ca raw ku nee war a sàmm waaye yaa ca raw ndax subaa soo jëfee def na ko ful ñaari yoon def na ko ful ngir jamono ji nga ko defee muy koor dellu ko fulaat ngir barab bi nga ko defee kon lu mat a bàyyi xel la muy weer woo xam ne juróomeel ba nag te bi ci mujj ci ci leeral ci li tegtal màggaay bi mooy weeru koor weer la wu bari barke bari yërmande bari njëgalu suñu borom ba tax saa bu tàbbee dañuy tëj bunti sawara yépp ràpp tëj tëjji bunti aljanna yépp afal jëng seytaane yi ba duñu mën a yàqal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir nit ki mën a jot ci boppam mën a dëgmal boroomam ba màng mën a màng yërmande xéewal gi am ci weer wi ni ko sint Tuubaa waxe wa saafidan kulla shaytaanin bi ma maahu wa mutxifan li dawil ihsaani bi safadi wax ci mujj xasida gi nag moom naka lay taxawee ci tàbbik weeru koor te day jaab lépp ñu ñu roy ko ci jànge ko ci moom itam sunu kem kàttan inni uhibbuka xubba daati daa talabi min maliki fii ka isaadam bila awadi dama la bëgg lool yow weer ko ni ñuy bëgg a jëmm sa jëmm laa bëgg tey sàkk ci sama borom mu defal ma ci sa biir ak texe gu àndu takum ndëngte mooy kon ak texe aku jub mu nuy jàngal ci loolu ne ab jullit suy tàbbi ci weeru koor wan naa am pas-pas ak góor-góorlu suy génn ceer yu génnaale ak texe waaye génnaale ak njub pas-pas wala war muy sab suy tàbbi ci koor na am pas-pas su suy génn ci koor génnaale ak texe waaye génnaale ci ak njub texe nag mooy nit ki am ne yàlla ak njëggalam ak mucc ci sawara te yonente bi sallallahu alayhi wasallam newoon na awwaluhu rahma wa wasatuhu maxfira wa axiru wa axiru itqun min naar ak njaal benam mu fukki fan yëkk yi yërmandi la fukki fan yi ci digg bi njéggal la fukki fan yu mujj ak gore la ci sawara kon ku tàbbi ci weeru koor te sàmmonteeg war ma ji defe ko ni mu ware amaana muy jële ci texe googee texe gi Sëñ Tuubaa di sàkku ci xasee suñu bon defal ko ci su dee ak njum nag li ëpp ci li gàllankoor nit ki ba dox diggam ak njub la ca ëpp ci bakkanam lay dellu bakkanam bi nga xam ne am maaratum bi suu te Sëñ Tuubaa nag bakkan amul benn jëng walla benn tënk bu ko mën a téye lu weesu xiifal ko saa bu jàmbi xiifalee boroomam ci koor mën naa dem ba ba ba ba nos ko war war ko jëmali ko fu ko sob ci topp ndigal ak bàyyi tere ca not gam koy not moo tax suma mot laay bi la'allakum tattaquun kon jaadu na kon woo dogg gu ma sëkk ci buy tàbbi ci koor mu yéene bu ci génn génnaale ak texe waaye génnaale ak njub lay jàpp na lool nag mooy mu jiital ak tuub ngir royu ko Sëriñ Tubaa ndax Sëriñ Tubaa nee moom waxtu nekk la muy dundale kooram mooy tuub da tawbatin fiika aydan maadiyan abadan bi dikri wa shukri wal quraani lil ahadi ñan ma dem borom tuub ci sa biir yow weeru lawees lépp donte de musa musa def li ñuy tuub boole ko di tudd yàlla ak di ko sant ak di jàng alquran ngir jëm yàlla dong waaye mu génn ci mboolem lu ko tere ak lépp luy bàkkaar dogu ci jëf lañ ko digal nañ ko ko digale ni ko wax ci njëlbéen gën a woor koor nag am ay àtte ak i teggin te dafa jaadu nit ci ab jullit lépp lu muy def mu xam lu cay àttab lislaam Sëriñ Tuubaa newoon na wax naa leen ne yàlla xaraamal na ci mépp mu kallaf muy jëf jenn jëfi diine te xamul njëkk lu ci àttab lislaam loolu dafa xaram xultu waxat xarama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila filan bi geyri ilmi hukmi sharci fiihi hada nasu dalilun qatci ko war nañoo xam lan mooy woor suñu laajoon lan mooy koor mën nga ko tënk ci ñetti baat ci lu gàtt wax ne koor mooy nga bàyyi bànneexi biir ak bànneexi pëy di ko dale ci fenku fajar ba ba jant bi so te yéene ci jàmm yàlla ci tënk looloy koor bàyyi mboolem bànneex yi biir ak bànneex yi pëy li dali fenku fajar ba soog jant te yéene ci jàmm yàlla ana la war war na mépp mu kallaf képp ko xam ne mat na mu kallaf te amum xel te jot ci woote bi lislaam def naa woote bi lislaam fi ne ñëpp ci jot waaye ku dundoon ba faatu te mus sa dégg mus sa yëg na am na yonent bu wàcc bu ñuy wax sayyidina Muhammad moo am na amul diine am na diine ju wàcc tudd lislaam xamu ko ci ba faatu kooku dara waru ko waaw loolu nag fi ne jamono weesu loolu mooy léegi ñëpp xam nañ ne lislaam loolu la kon su fekkee ab jullit la man mu kallaf te jot ci woote bi lislaam te benn ngant kooka la koor war ñu déggee ci lool ne kon warul gone waaye teewul gone su wooree koor ga dana wér warul ab dof ku texalu ko xelam te texle texle gam texalu xelam mooy tegu ko boppam sabab luwu ko kooku koor waru ko te bu wooree ci jooj jamono it koor ga du wér warul it koo xam ne jotul ci woote bi lislaam ba ndax su borom moo ne ma naa wa maa kunna mu'addibiina xataa nabaasa rasula bala maa mbugal kenn day fekk man yabal sama ndaw ci moom ba mu xamal ko li mu bëgg li mu bañ ba noppi kon warul ci ki nga xam ne dafa day jigéen te gis baax jamono jam koy gis walla ki am doom li fekk la muy àndal seetagut eh, koor warul leen dafay xaraam sax ci ñoom te bu ñu wooree koor ga du wér waaye war nañoo fay nag gannaaw bu ñu jël ni ci abi saydin xudur yi radiallahu anhu mu ne yonente bi salaa sallam nee na alayta isa xaadat xaadatil maratu lam tusalli wa lam tasum muttafaqun alayhi mu ndax du ne jigéen su gisee baax du julli te du woor du julli te du ko fay du woor waaye da koy fay kon Euh, ñuy li ci topp mooy masuraat yi mooy ngant yi nga xam ne comme gaar koor wàcc la ba keroog ngay tàggu loola ba ci njëkk mooy almaradu shadid wéri digu tar goo xam ne tee na laa mën a woor kooku daf am na sañ-sañu dog ci su fekkee docteur bu bu jullit bu am xam-xam da ko xamal ko soo wooree kat dana la jural jafe-jafe sàngam mbaa dana dolli sa wér mbaa dana tax nga yéex a wér su boobaa nag am na sañ-sañu dog suñu ba moo ne faman kaana minkum mariidan aw ala safarin fa iddatu min ayyaamin uxar képp ci yéen koo xam ne am na eh, ak wéradi wala mu ne ci tukki na jàppale idda kooram googee ba yeneen fan kon mooy tegtal ne kon ki wéri di kon wéri di goo xam tee na ko mën a wor am na sañ-sañu da ko waaye saa su wéree nag da koy fay ba ko ñaareel mooy tukki ki ci tukki boo xam ne tukki bu dagan la mooy la ngay tukki la ngay doxi do ak mooy yàlla do ay caaxaan do am po te tukki bi mat masaafatul xasri mooy tukki bi nga sañ a wàññee julli nga xam lu néew néew dana mat juróom-ñaar fukki kilomètre ak ñaar su am na sañ-sañu dog donte nag koor ga du ko lor donte su su waree du loru teewut am na sañ-sañu dog xam nga tukki bu gudd moom tukki moom ba xasi sore rek ñaari du ñàkk ab coona am ca moo xam coono ba néew mbaa mu bari mooy mooy la gën a not parce que fekkee coono boobu nag eh, day néew te bu waree du ko wàññi dara nag subaa koor gaa gën moo tax ba suñu borom wa an tasuumu xayru lakum su ngeen waroon nag moo gën ci yéen waaye am teewul am nga sañ sañu dog ak xadis bi soxna Aysa nettali wax ne Xamsatu bnu Amrin al aslami yi dafa nekkoon ko bari lu mu daa war masan laaj yun saas ne ko asuumu fi safar mu ne ko in shita fa sum wa in shita fa aftir da ko laaj ne ndax su may tukki damay woor wala damay dog mu ne ko su neexee nga wor su neexee nga dog ba ko ñetteel mooy jigéen bu tollee ab diggante dagan na ci moom mu dog su fekkee ragal na lor ci jëmmam mbaa mu ragal lor ci lim àndal am na sañ-sañu sukkandiku ca lool dog waaye su demee ba man ko day fay ba ko ñeenteel mooy nàmpal jigéen ji nàmpal te bu wooree am soow mu doom ji nàmp te doom ji mën a gut lekk te amul ku ko nàmpalal amul menn pexe am na sañ-sañu dog waaye nag su demee bay fay moom day boole fay ak joxe mut salaa salaam waxoon na ne inna la taala wadaa musaafiri chatra solaati wa anil musaafiri wal xaamili wal murdii as sawm yàlla wàññil na kii tukki genn wàllu julleem waaye teggil nag ki tukki ak ki toll diggante ak ki nàmpal koor ahmad ak Tirmisi ko ci na solo na xadis boobu mbokk juróom mooy mooy kibaru sinni ak mage ni ko su demee bàgg ci mage foo xam ne yaramam àttina na tut koor su wooree dana ko jural jafe-jafe am na sañ-sañu dog wottee kooram nga leneen mooy di joxe mudd saa bis bu bisu bu nekk natt lu mat kilo ci ceeb wala ci dugub eh, jox ko ab miskin loolu mooy wuutu kooram su fekkee amut lu mu joxe nag da koy wàcc Ibnu Abbas waxoon na yàlla ko yàlla gërëm yoo ne yàlla ko sunu dolli ngërëm ne ruqisa li sayxil kabiri an yaftura wa yatam an kulli yawmin miskinan wala xadaa alayhi nit ba àggee ci mag muy góor muy jigéen su boobaa am na sañ-sañu dog tey joxe miskin bu nekk ab mbudd bis bu nekk te du ko war su dee fàtte am na ñaari farata moom koor ñaari farata rekk la ba jëkk mooy yéene ñaari mooy jàpp ci lépp luy waral dog bis bu ma sëkk li ko dal ci fenku fajar ba ci soow jant daal su ma ne bu ko la na ngeen lekk te ba keeroo xataa tabayyana lakal xaytul abyadu minal xayti aswadi minal fajri soo demee ba leerug eh, maanaam leerug fajar tàmbalee feeñ ci lëndëmu guddi gi loolu jublu ci alxayt weñ wuñ gu weexe wuñ gu lëndëm wuñ gu ñuul mooy weexaayu suba guddi gi lañ ci lañ ci misaal soo demee tàmbalee feeñ ci ñu lay guddi nga bàyyi nag lekk ak naan sàttuñu nag ci koor yéene ju jonjoo ak jëf ji te xam nañ ne yeneen jëfi jaamu yàlla yi yéene ji ak jëf ji day jonjoo su dee julli yaa ngi yéene fi ngay bari kabaru xarmal su dee njàpp yaa ngi yéene fa ngay sëlmoo su dee leneen lu mu doon da jëf yéene ji ak jëf ji day jonjoo waaye bu dee ci koon moom yéene ji mën naa bañ jonjoo ak jëf ji suñ seenti weer ba ni weer waa nga ne rek ngaa fase foofu sa yéene xam nga koor gi fajar lay fase foofu sa yéene jooju mën nga yéene ndoo weer wi yépp te yéene ji da lay doy ba kere weer wi dee du jar yasal lu may dangaa dog ci diggante bi ngir ngànt sooy tàmbale waaye yeesal waaye fekkee li fekk dogu ko yéen yi nga yéenuñ ci guddi gu njëkk mën naa mën naa euh, man man mën naa wéy kon daal waxtoom mooy guddi gi lépp waaye na fajar yéene ji kon gépp koor goo xam ne toftale ko dafa war rek génn yéen man na ca doy ni ko noonu bu fekkee dafa xëdd it ba tey xëdd yu wuutu na yéene ndax képp kuy xëdd rek dafa kooku dafa sawar kon moo tax kon xëdd dana wuutu yéene ndax yéene ci jëfi xol yi la bokk jëfi xol la te kiy xëdd fas na ne kon daa daa nar a wor bu dee maliki yi nag dañ cee chartre yéen ji kon jiitu fajar rek ci bépp bépp koor goo xam ne dafa maanaam moo xam koor farata la moo xam kooru nafila la ñu tegtaloo ci li Ahmad solo ak Ibnu Xabbaan jëli ci soxna Xafsa mu ne yonent bi saasam waxoon na ne ku fanaanoowul eh, yéeneem lu jiitu fajar falaa siyaama la amul koor fanaanu maanaam ko xam ne yéen jiitul fajar rek amul koor Maalik yi ba tey dañu wax ne dafay war mu yeesal yéeneem saa dogee ngir ngànt soo wéri dee ba dokki wala ngay tukki dokki wala jigéen gis baax dokki suy tàmbaliwaat day war mu yeesal yéeneem waaye li fee nag dogg goomu nag yéen ju njëkk ji mooy wéy ba keroog koor gi di jeex faratay ñaareel bi mooy jàpp ci lépp luy waral dog tegtal mooy wakkuloo wës la boo jo ay jo jooju ma jàngoon léegi lekk leen te ba kero eh, fajar di jot fajar di fenk ay sunnaam ñett rekk la ba ci njëkk mooy xëdd xëdd sunna la Buxaari yu ak Muslim ko ci solo na jëli ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka de leen xëdd ndax xëdd barke ngi ci sopp nañ nag yeexe ko ba ci mujj guddi gi saxaaba yonti saa suñu ko dañu daa yeexe ba nga xam ne suñ xëddee diggante fi ñu xëddee ak julli jàng ñeent fukki rek moo fay xaj man nga ne juróom fukki man nga ne man nga ko natt juróomi minute ba ko ñaareel ci sunna yi mooy temps julli fitre mooy nga gaaw a dog ndax li yonente bi sallallahu laa wasallam waxoon ne laa yasaalu naasu bi xayrin maa ajjalul fitr nit ñi du dañ duñ daj na ci aw ni yiw li fekk gaaw a dog bu jotee rawahul buxaari yi wa benn riwaay boo xam ne buxaari yi solowuñ ko laa tasaalu ummati bi xayrin maa ajjalul fitra wa aqaru xeet duñ dañ di nekk ci aw yu li fekk ñi gaaw a dog te yéex a xët jëleen ci abi hurayra radiyallahu anhu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ne sun borom nee na inna ahabba ibaadi ajalahum fitro ki ma gënal ci sama jaam ñi ma gënal ci sama jaam mooy ñi ciy gën a gaaw a dog ahmad ak tirmisi yi ko ci ne solo na xadis boobu ba ko ñetteel ci sunna yi mooy taqlilul kalaam kalaam lu mu baax nga néewal wax ju dagan wax ju xaraam daa xaraam ci koor lu dul koor waaye wax ju dagan lañ ne nga néewal ko wax ju dagan nga néewal ko wax ju bari ju amul njariñ day sànq day sànq waxtu da fexe booy wax la nga nar a waxee wax ju bari nga jàng ko alxuraan wala nga jàng ko xasida mooy ko tudd ko yàlla wala def ko salaatu ala nabi mu nekk yiw woo xam ne suñu boobu rek mooy xam na muy toll ndax bokk ci sunnay koor kon fekk saw làmmiñ ci xeeti neen wax ju ñaaw saaga xaste jiw ràmbaaj ak yu ni mel nga moytu ko bu baax a baax am na it yu yàq koor bokk na yi ko yàq lekk ak naan moo xam yaa ko tey moo xam teyoo ko soo juuboo lekk wala nga juubu naan koor ga yàq na waaye teewut da ngay wéyal koor ga àggale te fay nag bis war la su fekkee teyoo ko su dee tey nag moom kafaara war ca bokk na ci itam sëy dafa yàq koor bokk na ci génne mani yu génne mani yu ak génnug mani yu du benn du benn nag ixraajul mani yi ak xuróojul mani yi benn su ne xuróojul mani yi day tegtal ni loo teyut la ci misaal da doon nelaw gént ba mu génn caw loolu sa koor dara rësi ko ja da sangu rek àggale sa koor dara wëru la ixraaj nag yaa ko sabab lu moom yaa sabu la ba sa mënuy génn subaa da boole fay ak kafaara bokk na ci tam lépp lu àgg ci ci biir ak fu mën a jaar ba àgg ci biir bi eh, dafa yàqu koor lépp lu àgg ci boli gi tey lu yolom lu yolom lu mel ni ndox wala meew lépp lu yolom su xasee àgg ci boli gi rek yàq na koor waaye su fekkee dégg lu dëgër nag soo mënee fexe ba génn ko euh, dara warul la bokk na ca tux cigarette ci ki koy def tux dafa yàq koor ak loo mën a tux nag dafa yàq koor ni ko noonu xëcc ci say bakkan lu am xet gu am doole lu mel ni xeetu mànt nga xëcc ko ba mu dugg la dafa yàq koor saxas cuuraay su la duggee day yàq koor ndax cuuraay moo tax nañ koy moytu daal ci bëccëgu weeru koor su la duggee day yàqu koor waaye bu dee saxar su matt nag yàqul koor moom waaye saxar su cuuraay ak cóolaleel cin su la duggee day yàqu koor bokk na ci itam rotal sa yéene dé dem ba digg bëccëg nga yéene ne wóoratoo doonte lekkoo naanoo sa koor dog na bokk na ci it eh, looju ngir wàccu soo loojo boccu koor ga yàqu na bokkut ak wàccu mu la not su fekkee wàccu mi moo la not moom soo ci wanaatu dara yàquwul waaye su fekkee yaa sabul wàccu moom sa koor yàqu na kon képp ku jëf lenn ci yooyu ma tudd te def nga di ci ak tey fay ak kafaara ca war su dul ak tey nag àggal bis ba ak fay moo ca war am na ay mustahabaat mu yi ñu sopp ci koor bokk na ci yañ ca sopp eh, booy dog nga doge tàndarma dañ ko sopp ndax li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ida aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu baraka fa illa fi ida lam yajid tamran falma fa innahu tahur nee képp ci yéen kuy dog na doge tàndarma ndax bàkkee ngi ci soo amul tàndarma na doge ndox ndax ndox lu ndox lu laab la Abu Dawud ak Tirmisi yi ku ci no ku ci ne nettali na xadis boobu bokk na ca li ñuy sopp it ci koor suy dogee tàndarma na ko def lu tóol lu tóol benn walla ñett wala juróom wala juróom-ñaar ci misaal wax nañu ne inna allaah witrun yuhibbul witra yàlla dafa tóol ndax ndax yàlla kenn képp la te dafa bëggit lu tóol bokk na ci ñu soppit mooy ñaan ci waxtu dog wala ndaw mbokki ndaw ko ndaw duñ ko tal waaye ñaan lu am solo la ci waxtu dog ndax foofu dañ fay nangoo ñaan tagg yàlla subhanahu wa taala ci kemtaal nam ko yayoo sant xéewalam muy xéewalu teggil gi la teggil coona ba noppi na dencal la ca yool bu rëy rëy nga sant ci yàlla ibnu abbas nee na radiallahu anhu kaana nabiyu salaa sallam isa eh, aftara xaal allahuma laka sumna wa ala risqika aftarna fa taqabbal minna innaka ta samiul alim nen daana wax ne yow sun dañoo woor ngir sa jëmm rek ci sa wërsëgi lanu doge koy yàlla nag nu nangul nda yax ndax ndax yaay kiy dégg te yaay ki xam tabraani yi nettali na xadis boobu maam it dox ñaan Sëñ Tuubaa ci boppam nag defan ci ñaan gu am solo kon taalib bu nekk war na koo fexe mokkal te di ko jàng ci waxtu doog ndax jéggalu yu am solo da ca nekk xam na li man aanani fa sumtu wa saaqali rizqan bihi aftartu falaka waxdaka ilahi sumtu summa bi xudratika xad aftartu falixfiran jamia ma qaddamtu ya xaafira dambi wa ma axartu wa kullama asrartu aw a'lantu wa kullama alimtu aw jahiltu anta ilahi la ilaha illa anta xini adabaka mu jalla yowma alqiyamati bi jaahil mustafa wa sallina alayhi suma lu gàtt la fefa moo ko saaboo dogee nga nga wax ko abdulahi abdulahi ibn omar nee na yonente bi salaa su basaan dog day wax ne dahaba zamau wabtalatil aruq wa sabatal ajru insha allahu taala marwa dem na ñaq wa fendi na te yool baa fi des ba faw insha allah tabraani yi ak xaakim ko ci na nett na xadis boobu bokk na yi ñu sopp ci weeru koor bareel sag jaamu yàlla wala say jaamu yàlla ni ki saraxe rafetal jëmi ci say bokk say jege rafetal jëme ci jirim yi ci miskin yi jokk bokk defar ab diggante defar mbokk ak jépp jëfi yiw bokk na ci taraaweex yi ñuy def ci guddi yi muy naafile guddi yi lu am solo la di ko defe ci jàkk yi su fekkee jàkk yaa ngi ko ñu defe ci kër ya sa kem kàttan ndax topp yàlla googu ci weeru koor dafa masiya muy muy daraja ak may yu kawe yoo xam ne da ko ëppalee mboolem yeneen weer yi ci des yëpp te yonent bi sallallahu alayhi wasallam na man xaama ramadaana imaanan wahtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min danbi képp ku taxaw di naafile ci weeru koor ngir gëm ak fàggu tiyaaba jéggaleef ko la jiitu woon lépp ci ay bàkkaaram bokk na ci li'tikaaf di sunna su am solo ci fil asril awaaxir fukki fan yi mujj ci koor nga def ko ñu baax ñi dañ ko daan def dañ ko fonkoon lool moo tax ni yonente bi sallallahu yooyu tax na dada daa gën a farlu ci xeeti jàmm yàlla yu wuute yu fasante ko rawati ci fukk yi mujj ci koor euh, kon yu yëpp yu am solo yoo xam ne euh, lu mat a fonk la ci weeru koor am na yu ñu sib kii di ko def mos lu am caf ko mos yàbbiwaat yàqul koor waaye sim nañ bari wax wax ju bari jëmul benn njariñ ci koor dañ koo sib def garab gu am caf ko ci sa gémmiñ te ngor te ngante wëralu ko dañ ko sib ci koor jëfandikoo pat dentifrice dañ koo sib ci bëccëgu koor su ca dara rëccee nag ba àgg ca bëli moom ci koor ga day yàqu soo góorgóorloo ba loolu amu ci nag koor ga yàqut waaye def nga lu ñu sib ni ko noonu fo ak lépp lu amul njariñ ci wax ak ci jëf ni ko waxi bébbant waxi caaxaan xeeti théâtre yu amul njariñ yi nga xam ne bëgg a reeloo nit ñi rek la te amul njariñ yépp yu yu mat la ci koor te jàpp nañ ci koor la bokk ba da nga gis ne koor gi daanaka tëli yépp ku ci da nga ci da nga jëw sa sketch yoo xam ne moom ngay moom ngay jagle ko di ko ci rek kon jëpp jëfi neen ak waxi neen daa mat moytu ndax xadis boo xam ne man lam yada xawla zuur wal amala bi falaysa lillahi xaaja fa yada taamahu wa sharaba képp ko bàyyiwul waxi neen ak jëfi neen yàlla amu soxla ci muy bàyyi kooram ak bàyyi lekkam ak naanam kon mooy bàyyi kooram maanaam maanaam koor gi amul njëriñ la bëgg a wax di fekk bàyyi woo jëfi jëfi neen ak waxi nen koor ga amatul njariñ ndax koor gi lañ bi lu ci bàyyi lekk ak bàyyi naan yàlla soxlaatu sa koor buxaari yu moo soloo xadis am na ay mubaaxaat mooy yu daggan yoo xam ne soo ko defee koor gi yàquwul wàññiwul dara ba ci njëkk mooy dagganal nañ ci ki woor mu fegal boppam aw tàngoor walla mar ci sotti ndox ci boppam walla xëppoo ndox caaw yaram walla gàllax ndiko wala sarax te bañ koo soril ndax eh, ci jumhurul fuqaha ndax li ahmad ak malik solo ak abu dawud jël ci abdurahman ibn awf am la abdurahman abi bakar la jéglu abdurahman abi bakar mu ne nettil na ko wax ca bokk na ci la ko wax ne ko gis naa yonent bi saasam muy sotti ndox ci boppam te booba dafa woor benn aw mar waral ko wala aw tàngoor waral ko ci lañ su ko néew dagan na kon taal ci kilim mu sedd dagat na àtteeb loolu la yor kon lépp lu lay fegal aw tàngoor wala aw mar ci biiru koor eh, eh, daggan na ci lu ci lu mel noonu ba ko ñaareel mooy dagan na ci ki woor mu xëye janaba mu xëye janaba gënul nag ndax ka xëye janaba dangay xam ne kooku julliwul suba dañu bëgg nga teel a sangu man a julli suba waaye lañ julloo wax ne mooy donte janaba ja dem nga ba xëye ko mooy yàqul koor ga dem nga ba mu naaj nga door a sangu xëye janaba ji yàqu ci koor ga daal da ngay sangu rek fay wër la dara wëru la koor ga wér na ba ko ñetteel mooy dagan na ci ki lépp luñ munta moytu lu mel ni ki génn ci mbedd mi pënd bi bari ba solu ko yàqul koor lu mel ni weñ walla carax ba jàll yàqul koor kii liggéey ci machine wàll su fekkee sungu sa da ko dugg ci lu mu sabub lu wut ba mu yëg ne dugg na ko yàqul koor saxaru su matt jigéen ñi ne ci waañ wi di togg saxal matt bi dugg ko yàqul koor say lor yi ngay wan walla sa fuuxtandiku nga wann ko yàqul koor ni ko noonu laal parfum ci say yére it yàqul koor yépp dagan na wàññiwul dara ba ko ñenteel mooy dagan na ci aji woor mu socc ci mboolem bëccëg bi dañ ca sàttam bañ caa taqal nag ca socc ba dara lu am caf ko lu mën a àgg ci bëri la ci gën mooy mu doon bant bu wow ndax bant bu tooy dafay am ndox tam ndox moom mën naa yàqu koor ngir li yonent bi saa sam waxoon ne law laa an ashaqa ala am la amatum bisiwaaki inda kulli soloot bu doon a bañ a sonal sama xeet naa leen digal ñuy socc waxtu julli wu mën a doon buxaari yu moo solo xadis ba ak ñaari nit lu moom bu dee teggi nii nag dañ koy tënk rek jeexal ndax dafa mel ni kilifa yu jógee ci sëriñ bi agsi nañu te war nañoo joxe kàddu balaa ñu àgg ci waxtu euh, taxawal jotaay bi bokk na ci teggin ya aji ji fegu fekk ay cëram ci lépp lu yàlla xaraamal war naa damm ab gisam ba bañ caa lenn lu xaraam rawatina jàmbur bu jigéen ak yu ne demee fekk aw làmmiñam ci wax lu dul dëgg fekk ko ci jëw fekk ko ci ràmbaaj fekk ko ci saaga ak wax lu ñaaw ak lépp loo xam ne tegginuwul ni di koy génne ci làmmiñam war na ko moytu ci weeru koor war naa fekk ab déggam ba du ci déglu xaram bu mu ci déglu jëw bu mu ci déglu wax ju ñaaw bu mu ci déglu musique bu mu ci déglu lenn loo xam ne da koy soxlaal walif tudd yàlla ak fàttaliku ko na téye ay tànkam ba bu mu ci dox mbukk jëm ci lu xaram téye ay loxoom ba bu mu ci laal lu xaram cëram yépp ba cër yi jeex ba ci sam xel sax nga tënk ko fexe bañ cee xalaat xalaat yu suufee xalaat yu ko mën a jural alkande yooyu nag donte dafa xaraamoon naka jekk ci bis yépp ak guddi yépp waaye xaraam nga dafay gën a tar su dee ci weeru koor naka jekk lu xaraam la woon waaye su weeru koor agsee nag xaraam nga dafay gën a tar ni ko noonu kon jëpp wax ak jëpp jëf joxan dafa wuute ak sharia rek jëpp jëf joxan dafa dàqonteeg ibaada jaamu yàlla ak ruuxu gi dafay wàññi ab yoolam maanaam sax mu dem ba far sippi yool ba lépp far ndax wax naa njalbeen gi ne koor dara taxul ñu yoonal ko lu weesu yar bakkan yi yar bakkan yi ak jubbanti jikko yi defar ko yéwénal ko ak laabal xol yi ak setal ruux ak yaram ci mboolem xeeti mbewte yi nga xam ne mën naa juróom doomu aadama alkande ak mboolem njaxas yi nga xam ne bànneex da ko bànneex bakkan da koy da koy indil li ne su ngeen wooroon day moo gën ci yéen wax ne as-sawmu lahu zaahirun wa baatin koor dafa am biir am biti zaahiruhu tarkul akli wa shurbi wa ma walahuma fi nnahaar wa baatinuhu assawmu an kulli ma ma yudxilu naar wa huwa imsaaku nee na bitti koor mooy bàyyi lekk ak naan ak bànneex yu ne mel ci bëccëgu weeru koor mooy yi do koor baatina muy biiram nag mooy woor ci lépp lu la mën a tàbbal sawara nga jàpp ca loola dal nekk wa siyaamul qalbi sawmuhu an kulli ma yuaddi ila naar min al aqaidi wal iyaatu billahi taala wa siyaamul lisaan sawmuhu an kulli ma yuaddi min ila naar min al aqwaal wal iyaatu billahi taala wa siyaamul jawaarihi sawmuhu an kulli ma yuaddi ila naar min al afaal wal iyaatu billahi taala mu ne kooru xol mooy nga woor ci lépp lu la ma tàbbal sawara ci xeeti pas-pas yi yàlla ñu ci musal koorug làmmiñ mooy woor ci lépp la sawara ci xeeti wax yàlla ñu ci musal kooru xol nag mooy koorug cër yi mooy nga woor ci lépp lu la ma tàbbal sawara ci xeeti jëf yàlla ñu ci yàlla musal na wal xal bu yactaqid wal lisaanu yaqu yaquul wal jawaarihu tafaal xol day fas làmmiñ day wax cër yi dañuy jëf te ñett yooyu rek am pas-pas ak wax jëf rek am ci la jàmm am bu ci nekk naa ba sellal ko ba ci jël teeba tamit jaa jële bàkkaar mu ne wa futuurul xal bi tafakkuru saatin taadilu ibadati sanatin wal jawalaanu fii malakutillaahi wal fahmu anillah xol bi na xol bi boo ci boo ci wooree dogga mooy xalam ci yàlla aw waxtu te dafay tolloo dafay tolloog jaamu yàlla ak jaamu yàlla ak at ak nag di wëndeel sa sa xol fii malakutillaahi ak nag dégg yàlla xam ko dee dogguk làmmiñ mooy tudd yàlla ak wax wax ji yiw ak wax xikma ak wëndeelu ci biir loola su dee dogu cër yi nag mooy wëndeelu ci ngërëmal yàlla subhanahu wa taala ak tënku ca bañ ko génn fenn la jeexale mooy Seex Seex Isaa waxoon bokk ci mag yi muridi Sëñ Tuubaa yi bu bëggee ngërëmal yàlla nu muy def alaa yaa rijaalallaahi quulu li mubtagi wusulan ilaa mawlaakum kayfa yasnau Sëñ Tuubaa ne ko furujun min altadbiri bil ilmi wattuqa wa tafwidu amrin lil ali wa fa man farra lil mawla bi tafwidi amrihi ilayhi najaa min kulli ma yutawaqau laa lil xalqi sir waltabis bihi mawaahibu fi darin tuxni wa tadfau mooy dal nga sa sa lépp looy jëf nga nga tegtale ko ci xam-xam teg ko ci xam-xam ak ragal yàlla joyal sa mbir jëmale ko ci yàlla tey toox li ci kanamam subhanahu wa te daw jëm ci yàlla te yore say mbir yëpp jëme ko ci moom kon dangay nga mucc ci lépp luy luy alage nee na kon doxal jëm ci yàlla te bañ a dox jëm ci bindeef yi te sàkku ci moom yàlla nag ay may àdduna ak yoo xam da lay jariñ te di la te fegal kon foofu la ñu tënk ndax waxtu yi euh, wax nañ jeex na yàlla na sunu bopp boole dimbale defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal nu ci te def na dëgg dëgg taalibe Sëriñ te Sëriñ Tuubaa na suñu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa jërëjëf Sëriñ Mamoor Mbàkke ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne moom nga indi muy saw sawmu ramadaan ahkaamu wa adab ni nga indee tomb yi sax kawe na njort sunu njort ndax wax dëgg yàlla ñëw nga ci ponk yépp def nga benn muxaddima bu am solo boo xam ne ak laabire la nga jiital ko teg ko ci ay aayaat ak ay hadiis nga dugg nag ci biir waxtaan wi indil ñu lan mooy koor ak ay njariñam ba noppi tamit indil ñu kan la war ak kañ lay war ak ki mu war lan mooy faratay koor ak ay sunnaam yu nuy tere ci koor ak li koy yàq ak yi ni ci sopp ak yi nga xam ne dañ ko cee sip ak yi nga xam ne dañ ko dañ koo daganal ci koor nga mujje bunt bu am solo te yaatal ko it muy ay tegginam mu bokk ci tomb yi muy teggini koor nga indi ci lu am solo mu jël ñu tamit ay laabire ak ay xikma yu am solo yoo xam ne bàyyi na ci sëriñ bi ak lenn ci magi taalibe sëriñ bi kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ànd nga boobu daayira bi nga bokk it ci ñi nga xam ne ñooy def bayaan fii ci jumaay Tuuba waxtu wu nekk nga doon tamit kenn ci biir liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma kon yàlla nañ ko teewee at yu bari bari su ko defee dañuy jàll ci beneen ponk bi xam ngeen ne tey jii mooy bis bi njëkk ci weeru ramadaan liggéey bi nga xam ne moom la daayira muxaddamatul xidma di ko def ci ndigalul sëriñ bi cheikh mohamadul muntaxa moo ci jiitu ci ay ñaanam jiitu ci ci ay jëfam ci ay barkelloom yoo xam ne dafay ñëw fii ci liggéey bi ngir mu jëm ci wàllu iftaar yi waaye tamit waxtaan yi ñuy def tamit moom mooy yeble ngir ñu ubbi ko mu yebal rakkam cheikh Mouhamadul Serigne Mamor Mbakke moom cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ne euh, dana koy teewal ci jataay yu am solo yu mel nii waaye boole ko ak doomam di boroom xam-xam moom it koo xam ne it dafay taxaw lu mel nii fee ca mi nan di. sëriñ cheikh mbakke moom cheikh mohamadul muntaxa di borom xam-xam di bindkat bu mag moom it ànd ak euh, waajuram di rakki sëriñ bi di sëriñ maamoor mbakke moom cheikh mohamadul ñu teewal fi cheikh mohamadul muntaxa ngir euh, ubbi liggéey bi waaye tamit xam ngeen ne sunu kilifa di sëriñ maam sëriñ moustapha mbakke mu cheikh moussa masamba at mu jot ba koy man moo daa teew fii di ubbi jataay bi noonu tamit la la la fi yebale ay njabootam waaye noonu la fiy jiitoo tamit ci jëfam ci at mu jot moom it ngir lu yéwénal liggéey bi yebal na fi ay njabootam sëriñ Abdou Rassaax Mbakke mu Cheikh Moustapha Massamba ak sëriñ Basiiru Mbakke ak mbooloo mu bari mu ñu àndal kon dañuy njëkkante ak waxtu wi jox kàddu ki sëriñ Maam Mor Mbakke mu Cheikh Amadou mu indi ay kàddu yu jóge ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi kon sëriñ bi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima bokki jullit yi fi teew yépp bokki taalibe yi ñoo ngi jéggalu kàddu yi ci barab bii ñu nekk ak fii ñu fii ñu toog ci biir jumaa ji ak ku tedd kii fi ne te digal digal teg na ko noonu nuyu mbooloo mi fi teew mépp di leen jotal ay kàddu yu gàtt yu bàyyi ko ci sëriñ bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha moo nu fi yebal si mu ànd ak sëriñ Cheikh Mbàkke sëriñ Cheikh Ahmadul Xadim Mbàkke doomam mu wax nañ ko teewal fii jotaay bu tedd bii santal ko mbooloo mi gërëm leen mu wax ni mu ngi nuyu waa muxaddamatul ma ci njiitul sëriñ Afiya Buso ci xalaat bu sell bii nga xam ni amal nañ ko ngir dundal weeru koor bii nga xam ni ñépp xam nañ fi ko sëriñ Tuubaa tegoon ci wormaal ak màggal ñu di ko dundal dundin wu sell ci ñaari yëf yi nga xam ni bu amee liñ bëgg ci weeru koor bi danañ ko am te moo di xam ne nii woore ak am lu ndoge bu ngoon jotee kon nee na mi ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm yéen mboolem ñi aji ci jumaa ji waaye di nuyu ñi nga xam ni ñoo fi toogal Cheikh Mouhamadou Moustapha ibnu ma Massamba moom mi nga xam ni mooy borom jataay bi moom lañ ko jagleel mu yebal fi waa këram sëriñ Abdoulaye Saax ak ñi àndal ñëpp moom it di koo xam ni lii ñuy def ci biti muy bendeel nit ñi bendeel ga bendeel nit ñi ngeen bëgg ñëpp am nañ doge kenn jiituwu ko ca ba am ci cër bi mu ci am te loolu bu amee dañuy wax ni laa xarwa ndax ku xam Seex Masàmba xam ko ci bernde xam ko ci lépp ki ko fi nekkal bu wuutoo sëñ bi ci loolu loolu kenn du ko nattable waaye mi ngi dellu sant bu baax a baax ki nga xam ni moo doon def waxtaan waxtaanu tey wii ndax waxtaan wi boo ko dégloo ba mu jeex mooy li sëriñ bi waxoon bii te def ko ijmaal moom la taqali fii ci jataay bi moom sëriñ maam moor doon def waxtaan wi la sëriñ bi waxoon bii ci kumte gi rek loolu la taqale ci waxtaanam lépp ba mu gën a leer nañ tax sëriñ bi ku ne xam ne amul jotu toog di wax wax ju yàgg waaye bu waxee la mu war a wax rek ñu leeral ko la mu ca bëgg a wax lépp mu leeral ko kon moom itam sëriñ baa koy sant di ko gërëm di ko ñaan waaye di ñaanal mboolem ñi nga xam ñoo nar a topp ci ginnaawam ci bis yi di ñëw ngir ame jataay bii di ci xam de koor di ci xam de diine di ci xam de taalu bi ngi leen di sant baax di leen ñaanal mu àgg ci jàmm mu fekk ko ci jàmm te jàmm rekk xew ci barkeb sëriñ Tuuba mu wëlbatiku nag nee na di soññ mboolem taalibe yi daayira yi ak def ko ci lu baax yépp luñ man ñu jàpp ko ci lii nga xam ni moom la waa Moukhaddamatoul Khidma taxawal te mooy iftaar yi mooy ndogu yi ndax mbir la moo xam ne mii yonent bi soññe na ko Sëriñ Tuubaa soññe na ko ñu góorgóorlu ci baax lu ci waay man nga xam ne sa bopp nga di ñaan na ci barkeb Sëriñ Tuubaa mi nga xam ni moom la fi nekkal te nañ ko waxe woon ci woote bi weesu lépp lu mu ñaan ci moom suñu borom dana ko may nee na mi ngi ñaan suñ borom may nu ñu woor woor kooru jàmm amuk wér am kàttan am jàmm ami xéewal ba mun ko def ni ko suñu borom bëgge te am ci ngërëmal Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom lañu koy def ci dëkkam nee na am na ci xel mu dal lool ndax Tuubaa gi ñu koy defe ak réew mi ñu koy defee te Sëriñ Tuubaa dëkk ci rawatina Tuubaa gi ñu koy defee rawatina fii ñu defee waxtaan wi rawatina fii ñu def bernde yi nee na jàpp na ni képp ku fi teew lépp loo sàkku suñu borom sàkku ko ci Serigne Touba suñu borom dana la ko defal nam la gën noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaar ñu teewe ko naka ni te kenn bañ a manqué mi ngi ñaanal it njabootu Serigne Touba gi suñ Touba dafa suñ suñu borom dafa leen jàmm liñ yéene ci liggéeyal Sëñ Touba ci weer bi ñoom njabootu Sëñ Touba gi góor ak jigéen. kilifa diine yi yéene ko liggéey lislaam ci weeru ci ñëpp suñu suñu borom defal lañ ci lu koy seen jot kàddu yooyu la suñ bi waxoon ko jottali ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ bi kàddu yi na sëkk jot na sëkk yàlla nga yàgg teew te yàgg